je suis le président du jury de Pour les statistiques, nous avons un effectif de 230 candidats, dont 76 garçons et 154 filles. Nous avons 6 absences, 3 garçons et 3 filles. Donc, euh, sommes présents 224 candidats, dont 113 garçons et 158 filles. Euh, asalaamaaleykum man la Birima Ndiaye président bureau association des parents d'élèves du CEM de Lambaye euh, euh, situation bi moom euh, actuellement ci école bi examen yi ngi jaar normalement élèves yi ñëw nañ quand même on a quelques absences quatre garçons et quatre filles donc kenn ki benn fille bi raison absence moy elle est donnée en mariage dafa sëy

maanaam jël leen matukaay yëpp ba nga xamante ne bii respecté nañ protocole sanitaire bi ku fii ñëw balaa ngay dugg dinañ la euh, teg thermoflash bi xool ba xam lan euh, moo la dal ñu soog la permettre nga dugg donc ñu ngi ciy sant di gërëm ñëpp vraiment euh, toutes les autorités yi nga xamante ne bii impliqué wu leen pour loolu mën a nekk problème nag du ñàkk problème hébergement parfois dañ koy am mais quand ñu ngi rafetlu taxawaayu askan wi ak waa dëkk bi ci ni ñu taxawee pour teeru gan yi euh, teeru mucc ayib ndax vraiment euh, am nañ fu ñu leen dugal ñu loger normalement la commune aussi def nañ li ñu war a def euh, bàyyil nañ ñu la grande salle de réunion ñu mën fa héberger des enseignants dëgg la tey mooy le premier jour de l'examen ñu ñëw pour recueillir vraiment euh, la situation waaye ñu ak ñoom la ba ci proclamation définitive des résultats euh, ñu ngi vraiment ñaanal élèves yi bu baax suñu doom jàng nañ jàng bu mucc ayib ci année scolaire bi professeurs yi def nañ seen liggéey li ñu war a def lépp ak ni ñu ko war a defee ñu ngi leen di gërëm leen sant waaye fi mu ne nag liñ ci des mooy ñaanal leen ñu am chance su jàll yàlla may leen examen bi ñuy ut yàlla leen ko yàlla may muy seen muur

तो वो इनसे बन हैं